mu nekkoon fi jëwriñ ci jamonoy Abdoulaye Wade tey jii mu daal di yëkkati ay koogam daal di koy wékk parti bii di APR di jàppale président Macky Sall doon amal ab tournée ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam ca Daaru Mufti moom Thierno Lo di yëkkati ay kàddu di fësal ne Touba ak murit yi amuñoo jafe-jafe ki nga xam moo di président Macky Sall waaye jafe-jafe Touba moom moo di seen soxla kenn da leen koo fajalul. xamal leen nañu ñun bañuñu président Macky Sall dañoo am suñuy problème yu ñu bëgg ku koy tey dafa am ay nit yoo xam ne yii ñooy jiite te ñooy yàqal président Macky Sall mais Touba talul bay am problème ak Macky Sall di wax ne murid yi ànduñu ak Macky Sall wax ju yàqu la parce que man bu murid yi àndoon ak Macky Sall bu Macky Sall weesoo gestoo du ma gis ci ginnaawam su ma toogoon moom mu war ma dara loo xam ne ñu bëggul murid di naa ko Serigne Touba la lan ne boo wooyu moo ko wuyu il faut que ñu bàyyi yenn wax yi ginnaaw ba mu fësale ne lekkati kase naxu li bay tournéem bi da cee boole yor ab caméra di filmer ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci président Macky Sall saa yu delloo Dakar daal di koy wan ki nga xam ne moo di njiitu réew mi ngir mu daal di mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom moo nekkee ci diwaanu Bawal may wax nag seen kii ñoo ko ca audio yi vidéo yi ci lañ ko wax bu ma demee dina ko jox mu xool déglu leen mu jéem a corriger li mu war loolu mooy li xew biir Touba. Touba parrainage bi xumb fi lool bëri fi lool ay jafe-jafe ñu nemmeeku ci yenn yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di parrain yi di bindu ñaar yoon jàpp ñett yoon moom Thierno Lo di fësal ni loolu lee seen kaso xaj na ci. am na tax yoo xam gis nga bu leen nit bis boo bindee sa tur ci ñaari liste nga bindal ko Xaliloo dem bindal ko Cheikh Cheikh Faye Samb bu ñu koy yóbbu ñu lay teg ci yoon. parce que amoo droit joxe sa carte ñu koy bind ñaari yoon. Mm. amoo droit jaay sa carte boo ci def rek yoon am na lu la teg mën na laa tëj te buñ la ci tëjee kenn du la génne. ci ab fàttali moom Thierno Lo mi di wéyal li nga xam ne moo di tournée bi ci biir réew mi waaye itam di xool li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nga xam ne ni askan wi dañ koy dund ak gàllankoor yi mu daal di koy becc ci kanamu njiitu réew mi jàpp ne lile moom mooy li mën a dimbali président Macky Sall ngir mu mën a am beneen mandat ci atum 2019